ma jambal jaañ bu ngeen fàttalikoo nag ci Pam Ngagne njaay ba mu ko fa invité nee na tëjoo na ak Adji Sarr lu yàgg ñuy waxtaan ginnaaw bi ñu nekkee ci problème ak Ousmane Sonko te boobu sax àtteegul leen bu dee yéen a ngi déglu euh, fàttaliku waxtaan woowule moo tax bi mu bindee livre xaatim na ci wala génnee gum na ci daal ni waxtaan nag aju lu yàgg yàgg euh, mu wax nag ci xabaar boo xam ne ñu bari xamuñu ko woon ci li mu wax nee na président Macky Sall yëgoon na mbir yi doon def ay pexe nan lay def ba Ousmane Sonko génn ci mbir yi loolu la ma jambal wax. Baye Assane Mesere kon ñu jëm ci wàllu Madiambal Diagne livre am bi xam naa bu génnee gaa yi nañ ko jënd li li yër ko baax ndax waxtaan nag aju lu yàgg a yàgg nee naat président Macky Sall bi mu yëgee mbir yi doon na def ay pexe ngir génne ci Ousmane Sonko. waaw waxi Madiambal Diagne wax dëgg ab livre am ki waxam ak yooyu yëpp daal nit ñi dañ ci daal di sawar <laughs> moom daal daa war na wax si terrain bii nga xamante ni si géej gi. non non Assane ba ci géej géej. ci lii daal la si livre bi. ak yàlla waaw mais waaw mais mu loolu après. wuy ma xaaral ma wax la wuy ma terrain boobu xam naa ne actualité bi mi ngi ñëw bàyyi dencal ñëwal ci lii rek. waaw ah, lii moom bu dee si benn côté sax wax na dëgg ndax Ousmane Sonko ko tooñ ndax Ousmane Sonko moo ko wutal tur saa bu ne tëll ñu ne eh na eh, nii fu mu awu mu ne nii mun ke mun xajutut loolu Ousmane Sonko ko tooñ ndax moo ñu ko xamante ni da ngaa fen bu ñuul kuk fu ne nii koo gis ne fenkat baa ngi nii loolu wax dëgg yàlla Ousmane Sonko ko tooñ foofu ndax man saa bu ma ko gisee sama xel si loolu lay dem sénégalais bu mu romb nga Ousmane Sonko tuddul tur Assane ma waxal ko fii Ousmane Sonko mës a tudd tur ma jàmbal ni dafa nangam bu ñul kukk waaw ah, léegi tey tuddul turam de ni mu waxee exemple bu ne ki ni daa bind ab livre naan président Macky Sall doon na ma génn si lii kooku nga xamante ni daa fen fen fen ba ñul kukk loolu nga xam kan lay wax déet mais waxagul lii nga wax Ousmane Sonko livre bi waxuma livre bi mais exemple la mu waxoon hmm. la ma jàmbal jaañ waxoon ci moom moom dafa ñëw aw ci la ma jàmbal jaañ waxoon daan koo xam ne dafa ba ñul kukk fu mu ne bëri ñu ngi ni kooku du wax ay waxam kooku nag man foofu foofu laa xaw a nekk daal maa ngi koy nuyu bu baax. waaw mais nee na président Macky Sall yëgoon na lii pour bëgg cee génne Ousmane Sonko doon def ay pexe pour génne ko ci. waaw ah, loolu moom bu doon bu fekkoon ne am na affaire bu du egsi fii. Hmm. ndax am na lu fi xewoon. ñu ne mbirum yoon la sëñ kii bi eh, Macky Sall bi ñëwee da see teg coon mu sedd. muy mbirum. am na fi daal doon nga si def ay éléments. foofu laa si muy lan ci lan. ma ne amoon na fi nga siy def ay éléments ba ñëpp tiitoon. naa comprendre ma kay lan la. ma ne teg nañ si coon dama si teg coon président man moom loo xam ne man def naa ci élément. def nga ci ay élément kay. yàlla président Sall moo ci teg conc waaw lan la. moo si teg conca ma it teg si conca bu ma man la bu ma waxee ni mu ah. teg naa si conca de. <laughs> Eh, jërëjëf eh, allez jërëjëf mu ngi noonu ndongo jërëjëf am na solo alaaji mm-hmm. ma jambal de livre am bind na livre toog ak ajeet wax naag lu yàgg ak moom. waaye lu ñu bari yëgul woon nee na mbir yi président Sall bi mu koy dogal yëg doon na def ay pexe pour génne ci Sonko. waaw c'est que livre bi euh, lan mooy njëriñu livre bi quoi livre bu Madiambal ci période bii mu génne nga xamante ni bii li mu teg noonu. Euh, nekkut loo xamante ni bii tey. Ousmane Sonko Adji Sarr l'histoire. nekkutut loo xamante ni bii intéressé na nit ñi parce que li ci ëpp nit ñi xam nañ ko ba pare. l'inconfidence. donc boo déggee ni mu waxee moom Madiambal. Mm-hmm. Euh, liyu gars yi di wax naan noon bu muus moom a gënal xarit bu dof mm-hmm. euh, parce que jamono jiñ toll nii maanaam li président Macky Sall liñ doon wane yëpp mooy yëgut sax mbir yi xamut ni yëf yi demee mm-hmm. moom mu ñëw confirmer nit ñi waxoon ne président Macky lépp moom la moom dafa jox Ousmane ko dëgg te yëgu ko mm-hmm. parce que bu waxee ne mi ngi ko ci doon jéem a génne waaw looloo la wax waaw le mu ko ci jéem a génne kon yëg na ko waaw ah non bi mu ko yëg surtout bi affaire karaté déet président Macky Sall boobu ba nag ban jéego la teg pour jéem a génne Ousmane Sonko ci mbir mi hmm. lan lañ gis kon moom dafa bëgg a wax ni président Macky Sall mi ngi au cœur ci mbir yi ku xam mbir nu mu demee ba ciy jéem a génne nit ak yan jéego nga la teg pour jéem ko ci génne yow gisoo jéego bu mu teg pour jéem ko cee génne kon li Ousmane Sonko ko waxoon ne yëg na ko et puis mi ngi koy moom lépp moom la. Mhm. donc moom dafa ñëw ngir dëggal loolu. Hmm. ok kon na jàpp ni daal mi ngi def defi pexe pour génne ko ci mooy kon saa mi ngi woon. waaw léegi moom lan mooy jubluwaayam ci mbir mi moom lan la ci jublu parce que dafa mel ni euh, mi ngi ñëw pour enfoncer président moo ko dugal. wala lan mbara pour dimbali Sonko kuy defi pexe di ci génne nit kay noo koy enfoncé waaw le fait que mu naan da doon defi pexe pour kii ko loolu dégg ci ne kon mi ngi doon def pexe ngir dugal ko parce que loolu nga gis li ma jàmbal bind ak li nga gis hmm. bokkut lan nga gis ok ñi doon communiquer yëpp dañ ne président yoonam nekkut ci mbir mi yëgut hmm. loolu la ñëpp doon communiquer hmm. yaa ngi dégg wax nañ ko président yoonam nekku ci yëgut mbir yi kërëb kërëb mbiru justice la léegi nga ne président da ko ci doon jéem a génne mhm. léegi Madiambal ci biir waxam jooju ndax ginnaaw yëg na ni président mi fi mu toll nii dafa loolu mbaadu mhm. dafa bëgg a commencé changer veste commencé yoole wala nu mu demee noonu yoole kan yoole Madiambal est-ce que du président lay yoole fi mu toll nii yoole ah. liggéey liggéey du yoole alaaji bu dul yoole lu mu loo ciy dégg c'est li mu wax lan man soxaay bu jàpp nañ ma ci lëf waaw sànjoogu yëg na ko waaw di def ay pexe pour loola bañ a siiw pour def ay pexe pour loola bañ a siiw waaw ban pexe la def pour bañ a si pour mu bañ a si Assane di ñëw di. xeexal xam nga lan moo am solo ci wax ji loolu yëpp amul solo xam la moo am solo ci wax ji. ma jëmal xam lan la ñu bëgg a xamal. Hmm. président yëg na mbir mi. loolu moom mooy l'essentiel. yëg na ko maanaam li ñu ñëwoon yëgu ko. ma jëmbal daf ñoo wax ne ñu yëg na ko. yow loolu nga ci déggee. ah mais loolu dong la. loolu mooy sens bi léegi nag lan la ma jëmbal tey fi mu toll nii lan lan moo tax léegi mu bëgguñoo xamal nañu président yëgoon na ko. d'accord waaw loolu bu livre bi génnee bañ xool détail bi dina dina ci gën a leer. incha allah sens bi yëpp loolu du na leen aywa.